salte boobu nga wax de yéen jox nañ leen ci tuuma lool yéen waa conseil municipal bi yow ci conseil municipal nga wàllu waaw mais assainissement benn conseil municipal def ko bu dakaar sax attanul assainissement Dakar yoru ko assainissement état moo ko yore ndax dafa diis waaye nag am lu ñu ci mun def. waaw dañ ñu le minimum sax mooy curage. waaw waaw bu état defaree nag yenn comme ni ñu def ci autour jumaa ji ak ñaari étage bi ñu ko defaree ba pare commune nag war na jël ay matuwaayam fàggadi ko ba nga xam ne tamit duy boucher. ndax tam curage war nañ ko mun def nag waaye xam nga Touba man nekkoon naa adjoint président communauté rurale bu Touba boobu communauté rural la Alaaji Baara fi nekkoon maa toppoon ci moto la bunti kër sëñ Abdou Fatah gii ci jumaa ji fii bu amoon gan bu jógee bu mun daaw mun a jàll bu tawee ba pare tuuti rek bu taxee tawee tuuti da nga daan da daan nekk déeg sëñ Abdou Fatah Fallu ñaari étage noonu yoon yi jëm dënk yëpp ci jumaa ji da daan da daan da daan bu tawee tuuti rek mu fattaan tey defar nañ ko ba dañ na waaye nag gis nga dëkk tant que defuñu politique de dallage dakaar rek fee ci yem dakaar gis nga ne mal bu tawee boo demee ci réew yi ñu yéem Màkka ak feneen dañ ko dalee ba bala nga dalee bala nga defar tëli da ngay defar assainissement tëli boo gis mu njëkkee te amul assainissement ci dagg ci yàqule jëm assainissement mooy tax ndox mi dem mais assainissement tam pour que tuyaux yi mun a di dox il faut que ñu dalee dëkk bi ndax boo defee assainissement te dale woo salte bi nekk ci kaw dëkk bi suuf si bés bu tawee taw bu njëkk ñooy daw ñoom ñëpp dugg ci biir pax yi fekk cuire nga par ñoo ñoo fattaat ko gis nga gis nga di tubaab di wax on ne recrée pas la roue maanaam roue roue di roue oto ni muy mel nii donc mos a gisaat ci àdduna ñu defar beneen façon roue boo xam ne. mais gis ni fii curage bi dañ ko defoon en masse appel xalif général sous le jeudi xalif général des Baye Fall ñu ñëw te gars nee nañ ci commune bi woote woon na amoon na benn ligne budgétaire boo xam ne jéemoon na ndax loolu dañ koy reporter à nouveau koy joxe addiya wala nuñ koy def wala dañ koy séddoo. mais ligne de crédit bu amee ci budget c' est pour que ko pour li taxoon ligne de crédit bi ñu bind ko fa nawet bi ñëw na ko nañ ko jël def appel d' offre wala ñu seet ni ñu koy joxee marché bi curage bi am na ñoo wàcc defal ñi bu ñu wàcc itam di def yaakaar naa ne commune bi dugal na ci loxoom ci ay matériel engin yu ñu nit ñi seen loxo rek lañ yore matériel bi ñu koy defee defe naa mairie bi xanaa lu mu bon bon dina indi présence bi de ah loolu de bu amul nag da ngeen koy laaj nag ñi jiite mairie man conseil municipal la waaye jiite nekkuma ci nekkuma jiitewuma nekkuma ci conseil municipal nekkuma ci bureau bi ci conseil bi nag laa bokk téeméer yi ñu fi tànn.